salaamaaleykum sama mbokk internet di maa leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant tey nag ñoo ngi suñu beneen émission mode et tendance waaw tey dañu seet si suñu benn xarit boo xam ni ñëpp ko xam si wàllum diw waaw muy tudd Kim Claire waa Kim nuyu naa la. maa ngi lay nuyu di nuyu waa Dak Médina di nuyu seen internet yi aussi. di mhm. nuyu ñëpp comme ni nga ko mhm. waxee Kim Claire moom c'est international di nuyu tamit sama cliente yi nekk. Europe yëpp dinañu tamit waa Sénégal yëpp aussi. mais Kim tey dama fee ñëw fekk fa ay diw. waa ki ne ki ne yow la moo la dugal si jaay diw. waaw man jaay diw li ma ci dugal mooy que ne mën naa ne mode bi laa topp ak tendance bi. parce que xam nga comme jamono nu muy doxee rek da ngay dox ànd ak moom. mën naa ne mode ak tendance moo ma boole ak ak diw yi quoi ak diw dëgg la dëgg la dëgg la mais yow lii ñaata at nga si def. waaw décembre lañ ciy def deux ans. dañ ciy def deux ans parce que ñu ngi ko commencé ci décembre. Mm -hmm. décembre 2019. Mm -hmm. donc euh, may nuyu au passage aussi sama yaay parce que lépp moom la. Mhm. parce que diw yi booy xool ci moom la commencé. xam mhm. moom mu ngi Europe. Mm. voilà nek Europe nema dafa soxla diw ma defaral ko diw. Mm. à travers mom nak xaritam yi ku nek diko ko laaj looy diwoo. Mm-hmm. donc Kim clair fofu la juddo quoi. Ah, ok ok ci sama yaay la juddo ok mm. mais ma gis diw yi am ay diw am ay huile. Mm-hmm. am ay savon. mais est-ce que mën nga fa présenter diw yi. waaw diw yi. Mm-hmm. yi moy diw yaram yi. yi crème de visage la bi pot bu mag la bi pot bu ndaw. bi crème de visage la. bi huile blanche la bi lèvre rose la ñep xam nañ ko aussi légui dafa nek bokk tendance donc góor ak jigen ñep koy utiliser bi aussi lotion la pour nettoyer kanam góor ak jigéen tam ñëpp dañ koy utiliser parce que kanam bu lisse tamit ñep ko soxla bii moom euh, kii la sel de bain pour ñi nga xamantene aussi duñu diwu wala ñu bëgg tamit dindi sen tache ay impurité hmm. yi moko ko tax yi mom ay savon la bi savon jana la bi savon noir la ok mais yow say say diw da ngay jaay pour peau peau yi wala ñëw xees rek ñu xees rek ngay jaay. non awma peau noire mais par contre am na métissé. ah ok bi moo nekk nii. ah ok am nga métissé. am ah. bi moo nekk nii dañ ko fàtte génnee mais ci produit la bokk. Ah, mais pour teint noir nag awma ko chaque jour nag. Mm. ñu xas ma ci sollicité ma ko. Mm. mais xam nga teint noir lu ko diw dafa yomb. su naree jënd ay gants vingt cinq mille cinquante mille. Mm. donc mu jëndee diw mille francs sax day dem. parce que naar même bu sangoo sax te diwul hmm. ñoom dañuy dem waa hmm. mais du dara nag mais chaque jour ñu ngi ma koy laaj et tout hmm. business bi métti na wala méttiwul waaw business bi métti na méttiwul metti na mooy que ne des fois nga tase client yoo xamante ne xam nga comme période bi ñu nekk nii muy tàngaay bi mm. neexul nga xees mm. parce que am na ñoo xam ne tàngaay la ñuy xees am ñoo xam ne seddaay la ñuy xees mm. ñi nga xamante ne nag euh, duñu xees tàngaay day difficile des fois ñu ne da nga changé produit bi alors que produit bi kenn changé ko même produit la chaque jour bio la amul dara loo xamante ne da lay day day changé quoi mais période yi la rek am na ñoo xam ne période bi la ñuy xees am na ñoo xam ne période bi mais méttiwul parce que man macha allah clients yi ma am dañoo compréhensible ba pare baax macha allah daal aw ma ñoom benn problème dañu mel ni comme. Mhm. ñoom daal si ñooy sama deuxième famille. ok ok comprendre naa mais ki ne yow da nga nekkoon Europe doon liggéey foofu noonu. Mhm. nekk Italie. Mm-hmm. doon fa liggéey mm-hmm. tey jii nga jël lii def ko sa business mm-hmm. dafa mel ni kon yaa ngi si gis sa bopp bu baax a baax macha allah waaw loolu dëgg la xam nga dañ ne picc a ngi ci kaw mais xel maa ngi ci ci boutique xelam ngi ci boutique tamit ñun bu ñu tamit lépp lu ñu tamit bëgg nañ ko ñëw ko suñu réew boo ko kook suñu suñu waa réew comme restaurant bi par exemple sama yaay moo investir man boutique laa yoroon prêt à porter mais fi mu nekkoon dañoo jaay kër googu donc may wut boutique amuma ma aligné ko ak restaurant bi mais yàqul dara dara aussi tamit ci liggéey bi. yàqul dara neexal rek waaw dëgg la dëgg la Kim sotti ceeg def ci la. Uh-huh. mais produit yi Kim. Mhm. yow yaa koy defar wala da nga am partenariat. waaw produit yi moom bu weesu saabu yi saabu yi moom dama am partenariat bu nekk Nigéria moom moo. moo féetewoo saabu yi mhm. ak euh, sel de bain bi mhm. mais diw yi moom maa ngi nuyu walé sama benn yaay bu baax bu nek Ouest euh, Foire mhm. moom mooy dem Malaisie mom moy indi produit yi jox ma ko man mélange rek la ci am ak sama raq yu baax yi ñom dal ñomay may ci liggéey bi vraiment mais produit yi mbaa amul effet secondaire parce que dañuy gis né en général euh, xalé yu jigéen ñi suñuy diw des fois da nga si gis ay rew des fois gis ci ay lakk ak yooyu noonu te des fois produit produit xeesal dañ koy def waaw mais mais loolu est ce que sa produit yow est ce que garanti nga ko est ce que est ce que amul sago man question bi moom content naa ci trop pour bëgg ci tontu mm-hmm. parce que xam nga xeesal dafa bëri façon te mm-hmm. ndurowul mm-hmm. parce que produit yi ni ñu wutee prix yi wutee noonu la produit yi tamit wutee mm-hmm. parce que diw bi amul déjà tube amul mm-hmm. effet secondaire beauté naturel lañ ci bind mm-hmm. parce que lépp ma naturel suñ la koy jaay dañ la naan yàqam ci da ngay jël sa temps fur et à mesure rek da am teint bi nga bëgg parce que tamit pour kenn du ko agressé donc bi amul effet secondaire yow yaay sonn rek bàyyi ah, mais ak ki moom beauté naturelle rek ngay am foofu ah, ok mais yow comme tey nit waa su ñëwoon tey ak teewam ne la man couleur bii laa bëgg a mel dama bëgg a xees pecc. Mhm. wala dama bëgg yem. Mhm. yow di nga am loo ko digal. waaw bien sûr ñun ñu ngi ciy jàppale bëri na Kim Claire nekkul ne day jaay diw réew. Mhm. Kim Claire en même temps bañ ne ko ba diw yi dafa am groupe. groupe bi dañ ciy waxtaane lépp lu jëm ci yaram. di dimbale ñi nga xamante ne auparavant tam xeesal da leen a yàqoon. donc dañuy réparer ñooñu seen i ñi bëgg a am teint am nañ lu di jox. ñi am nañ seen produit bopp. Mm, mm. mais daal ak Kim Claire moom dangay ngay am teint boo boo bëgg rek. Mm. boo ñëwee da ko fi fekk incha allah. incha allah sa sa sa diw yi. Mm-hmm. pour ñaata temps ngay leer naññi. voilà diw yi oui un mois deux mois ça dépend quoi. parce que am na ñoo xam ne dañuy jënd pot yu ndaw am na ñoo xam ne dañuy jënd pot bu mag par exemple boo jënd pot yu mag yi. ay un mois rek man nga gis résultat mais bu dee yu ndaw yi 15 jours nga koy diwoo mu jeex donc il te faut ay trois pots yooyu pour nga mën a gis résultat mais bu dee pot yu par exemple moom yooyu un mois rek nga gis résultat ah, ok

diw yi daal mën naa ne mooy caatu liggéey bi. ah ok voilà. Mhm. mais dama gis comme yenn maison de beauté ak salon de beauté yi. Mhm. dañuy defaale en même temps ay pédicure manucure affaire yooyu noonu ay. jaay greffage yooyu yëpp mi ngi suñu xel. Mhm. mais comme ni ma la ko waxee woon de dañ doon wut magasin. te boobu ba tey mu jafee am parce que fi ñu njëkkoon nekk. dañoo jaay kër gi mais. comme par exemple sama rakk bi ma make up make up hmm. rek lay def loolu hmm. gis nga ko sama kanam hmm. make up rek lay def yooyu yëpp ñun dañ koy def dañuy def make up pédicure manucure soin de visage mais problème place la ñu amagul mais ñu ngi ci yoon bi incha allah ah, loolu daal kon kon daal loolu moom o ngi sa xel daal waaw loolu ci projet yi la bokk te li yàggatul dara sax incha allah incha allah ah. mais Kim mhm. est-ce que diw yi nii mën nañ xam composant yi base bi base composant waaw diw yi moom comme ni ma ko waxee rek ci début bi Kim c'est la beauté naturelle. diw yi du leneen lu dul lait bu baax dañ ko basé. Mm. lait bu baax a baax bu cher. Mm. en plus def ci ay sérum. ak ay mm. huile loolu daal mooy base Kim Clair lait bi. Ah, ok mais Kim. Mm-hmm. yow say clientèle ay sénégalaises lay doon wala ay étranger lañ wala ban façon clientèle wala mag wala xale ngay jaay. waaw man samay clientèle nag ñëpp ay sénégalaises lañ. ok dëgg yàlla nee nañ feccum liir bu neexee dañu naan ndax ndey jaa téye ci mbagg yi mm-hmm. mais man sénégalais yi téye samay mbagg mm-hmm. ñoom ñoo ma jàppale mm-hmm. ñoo ma puus ba lii yëpp am comme ni ma la ko waxee woon rek samay cliente nag Europe la ñu gën a ëpp France Italie Espagne foofu la ñu ëppee daal ma leen di nuyu ñoom ñëpp de passage tamit waa France aw ma seen fay waa Italie waa Espagne ñoom ñëpp voilà chaque mois voilà ku lii day dem rek daal te lépp mm. ñoom la aussi waa Sénégal tamit kenn du ñoom niñ ciy jàpp mm. banlieue bi mm. aussi may nuy tamit waa Linguère waa Linguère tamit samay cliente lañ ñoom duñu sonn Dakar ak Linguère gis nga ni mu soriwee mais chaque mois ñoom tamit seen colis day dem xam nga Dakar Linguère waa Rufisque sama dëkku maam. Mm-hmm. tamit ñooñu kenn du ñoom tamit ci Kim Claire. Mm-hmm. Rufisque moom du ma wax chaque mois. Mm-hmm. Rufisque moom dama naan chaque semaine moom am colis yu dem foofu ñoom. ñoom daal kenn du ñoom waa Médina. tamit xam nga mm. jàpp nañ ci combat bi daal su ma nekkee di lim mm. te mu juum mm. te vraiment mën naa wax ne daal Sénégal yëpp jàpp nañ ci combat bi Sénégal ñëpp daal Kim moo leen di jaay waaw gis nga Sénégal képp koo gis muy nes na si rek Kim fa jaay <laughs> mais bi ak say façon diw waaw tàngaay bi tàngaay bi moom ñoom samay client déjà xam nañ loolu ba mm-hmm. ku ci woote sax dama la naan ak tàngaay bi dañuy wàññi sérum yi mm-hmm. ak huile yi mm-hmm. parce que tàngaay ak sérum ak huile adapté wuñ donc seddaay nga xamante ne euh, yi dañuy set ci la ñu yokk huile yi ak sérum yi mm-hmm. mais comme tàngaay bi nii dañ koy wàññi bu baax sax def mm-hmm. plus de lait mm-hmm. donc voilà man damay conseiller sax tàngaay bi ñuy ñuy noppala ko quoi mm-hmm. comme ni ma def di def teint bu yam yow yow xam nga ma yow garde sa lii waaw gis nga garder ko noonu ba ba sedd bi dugg ci parce que ci la gën a neexee et puis tamit bu boobaa du fet voilà sa yaram du yàqu nga tàngaay tout le temps da ngay ñàkk ak rayon de soleil yi même boo génnu sa kër lu ñëpp xamul nga ne génnuma rek damay diwu rayon de yi day dugg ci biir kër yi tamit ñu bàyyi loolu xel il faut nag loolu nag il faut nga leeral ko sa clientèle parce que ñoom mbokk internet di sama client yi loolu moom maa ngi leen koy leeral mhm. diwu tàngaay moom dina metti doo xees sa yaram dina yàqu mhm. parce que même boo génnulee sa kër sax rayon de soleil yi day dugg ci biir kër gi kon donc tàngaay bi ñuy noppal peau yi mhm. di leen bàyyi noonu ñuy noppali ko di diwoo lee kase di sangoo tamit saabu yu baax ba ba ba temps bi changé ñu daal di diwu loolu tamit bëgg naa ko ci trop wax dëgg yàlla gis nañ bagage yi franchement tamit kontaan nañ trop parce que accueil nga ñu accueil bu rafet. dalal nga ñu wax nga ñu tamit say produit wax nga ñu tamit ni ñu utiliser tamit diw yi. wax nga ñu temps temps bu nek ak diw bi ngay utiliser. franchement kontaan nañ trop parce que teeruñ nga ñu tamit. waaw maa leen gën a kontaan Lamine di wax waa Dak Médina aussi kontaan naa. Mm. di waat seen moo mbokku internet yi. Mm. di wax na tamit adresse bi fii la rek benn la muy mm. rue 39 angle 18. chez Kim. am na restaurant. am na tamit diwu leer dafa sa yaram. <laughs> Jesner yaa ngi fi greffage yi aussi ñu ngi fi. may sant di gërëm sama yaay. ndax moom it ku ma jàppale la. di sant sama papa di sant samay rak di sant tamit sama doomu nday yi. ndax wax dëgg yàlla ñoom su ma jugee ñu xam nga loolu ak ay njabootam mm. su ma jógee ñu jóg suma toogee ñu toog su ma jàppee ñu jàpp suma ma bàyyee ñu bàyyi mm. liggéey bi dëgg na ne man la ñuy gis mais lépp ñoom la mm. ba tax na lépp ñoom laa koy delloo Kim Claire fu mu toll rek ñoom la muy Roqaya Ngone. Ngone ah, waaw Ngone sama xuloo waale ak ak Roqay sama yaay. sa yaay booy. waaw ak jaara da ngay juum mhm. jaara. xam nga kenn du ñoom xale yi daal kenn du ñoom. mafia bi la. mafia bi ñoo ci jàpp daal ñoo ci jàpp ñoo ci jàpp. kim daal mhm. xam nu mu fi nekkee nii solu ñëw toog. solu ñëw toog dëgg la mhm. kon kontaan nañ trop si yow. kontaan naa tamit ci yéen. kontaan naa daal ci ñëpp di kontaan aussi ci sama client yi encore une fois. delloo naa leen lépp merci beaucoup. waaw kon suñ mbokku internet yi tey lii lañ leen indiloon seeti Kim Claire mu wax ñu ay diwoom ak ay façon léegi nag ñoo ngi leen di xaar suñu beneen numéro mode et tendance bu leen ko raté. waaye ñoo ngi leen di wax ngeen abonné su suñu chaîne Dak Médina tamit bu leen fàttee tamit bés cloche bi parce que yeneen yeneen affaires yi ngi ñëw yeneen bagages yi ngi ñëw te bàyyiwuñ kenn cordonniers yi ñoo ngi ñëw tailleurs yi ñoo ngi ñëw. képp koo xam ne am nga looy jaay wala bëgg nga ñu woneel la ko. da ñuy contacter si suñ numéro service commercial bi mooy boobu di daw si suuf noonu. lii lañ leen indiloon tey seen émission mode et tendance.